tey fukki at ak ñeent parce que fukk ak fukk juróom la li am mais bu ñu fii ñëw ba léegi parce que il a fallu un an pour ñu ñëw fi donc quatorzième anniversaire bi enfin que commémoration bi moo am ni quinze ans la première année bi on n'était pas là le drame un an après on a commencé à venir donc ça fait quatorze ans qu'on est là que Dieu nous a la chance la force d'être là tous les tous les ans mais dañ fiy ñëw pour lan pour fàttaliku pour ñaanal ñeeñ pour que aussi àdduna euh, bi yëpp commencé Sénégal ñu bañ a fàttali li xewoon parce que nit ñi dañuy gaaw a fàtte moo tax ñu am teemu tey euh, ñi naan euh, li ñu war a débattre panel bi euh, place du souvenir que Joola 15 ans après amnésie ou banalisation nit ñi dañuy fatte wala dañuy sofantal yëf yi. li may wax nit ñi c'est que Joola bi depuis le 26 le 27 xaw ma le 28 septembre li nit ñi wax ak gouvernement li mu wax moo fi nekk ba léegi donc justice bi parce que d'abord pour que nit ñi di fàttaliku di éviter yenn il faut ñu wax leen lan moo xew xam nañ Joola bi suux na maintenant la suuxee man mi xaw ma ko.

la vérité je procureur de la République bu mu classé dossier bi est xam nga xam nañ ni y a jamais une enquête qui ouverte dans la justice sénégalaise la justice sénégalaise n'a pas connu de ce dossier c'est-à-dire ubbiwuñu enquête pour na xam lan moo xew dañuy jékki-jékki rek procureur bi ne dossier classé sans suite mais ce procureur ñoo koy fay ñoo ko jox kër oto jox ko garde corps jox ko chauffeur di ko jox téléphone di ko jox mais liggéeyul dara mais lan la ñuy def euh, tuumal ay nit rek dal seen kaw dañu war a liggéey Sénégal dañu war a respecter suñu bopp c'est-à-dire mënoo perdre ay 2000 personnes mu nekk nga nekk champion du monde si catastrophe ba pare ngay am comportement de bassesse yi nga xam ne ñemewoo sax dem jëli bateau bi génn ko Abdoulaye Wade su fi ñëwee gars dañ may rey mais ku ko remplacer peut-être que <laughs> il na nit ñoo fa des ñu béy di toppatoo seen famille yi seen doom yi seen jabar yi ne ñeneen ñi am nañu doom am nañu papa am nañu yaay te lañ leen jiital pour loolu man loolu rek laa mere suñu gars yi parce que ñoom pour ñoom li ñu jur rek moo am alors dañu dañ la dënk réew ak ñu fa nekk yëpp donc je crois que il faudrait que autorités yi comprendre l'appel des familles su ñu defee seen jéye bi famille waxuñu dara juguñu jëluñu xeer jëluñu fetal pour xeex ak ñoom nañu ñu déglu tuuti nañ ñu indil les nôtres mooy nga xam ne suñu nit lañu suñu kadaaf amuñu benn sañ-sañ di leen foofu. et je crois que c'est la où on n'est pas d'accord nañu renflouer nañu def lu ñu war a def justice bi renflouement ak def musée mémorial bi au moins <laughs> même su dee bateau bi nekkul même euh, musée mais au moins ñu am fu ñuy recueillir. ñu am fu ñu am centre de formation de la prévention ça c'est notre projet prévention des risques mais bateau bi dafa am li xam dañ ko war a wax ci moom il faut moom musée bu koy raconter ba nit ñi ñu des aussi ku ci am na nga xam ne war nañ ko mën a raconter ci yow mais noonu la soo demee musée yi à Vienne un peu partout dans le monde mais c'est comme ça qu'on fait moo tax tubaab di avancer mais yow soo amee yàlla jox la kii ni ko Malick la bokk sénégalais mënu ko dax